ñoom ñaar jéggi na si yoon wàcc na jël na Tapha Tine bu baax yéen ñu topp ci Leewtoo TV comme ni ma leen ko waxee chaque fois Ndeye Mbacke Diop ak trio bi moom moo maane Bilal sama caméra bu man bi Fama champion bu ne la dem ngay toog waxtaan ak moom ci lépp lu ko soxal ak lu soxal làmb li olof njaay naan ku fóotal mbëtt roccil bar bañ jógee ci nonguloo xamoon ngeen ne Cheikh Tidiane ñaar dinañ jaar ci moom kon nañ koy daal di nuyu rek moom ninki nanka xuus ak moom tudd ci combat bi ninki nanka maa ngi leen nuyu maa ngi lay nday waaw avant tout ñuy nuyu monde entier ñëpp ginnaaw bu ñu jullee si yonent bi sant suñu ñaari ñu ngi nuyoo ñëpp di nuyoo monde entier sa bi di nuyoo monde entier di nuyu sama mbokk mbër yi ñi nga xam ne ñoom laa toogal nii waa parcelle waaw waa Dóor Dóoraat waaw di gërëm ñëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ci àdduna bi maa ngi lay nuyu di nuyu kilifa aada yi ak kilifa diine yi. waaw di nuyu sama mbokku ñoojoor yi waaw ñoojoor ba fayaa ko maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm waaw. ni ma ko defee ak Ndongo laa koy defee Cheikh Tidiane Niang balaa ñu dugg ci waxtaan bi rek mën nañ ñëwaat tuuti sa carrière. waaw avant tout dafa am sama benn booy bi nga xam ne moom mooy toogal ci mukaay papam moo gaañ maa ngi koy jaale di koy jaale monde entier. di koy mhm. jaale mbokkam yi sam suñ mbokk yi nekk Espagne ñëpp waaw di koy ñaanal yàlla xaaree ko arjana mhm. waaw. Mhm. mën nga ñëw sa carrière ñaata combat nga am arène. waaw combat ñun suñ combat yi presque bëriwul sax waaw. mais suñ combat yëpp tamit victoire lañ si am bëri neen ak la nu mu tudd Souley Sarr bëri neen ak euh, nu mu tudd Waly Notaire bëri neen ak kii la show bi ak capitaine waaw. Mhm. jot naa ñoom lañ bëril quoi. muy noonu nag Cheikh Tidiane Niang sa combat yooyu nga ban combat moo la ci gën a neex. man ñëpp ñoo ma neex. <laughs> dina am combat xul da ngay da ngay toog heure boo toog xam ne combat bi bokk na ci combat yu la gën a neex. non loolu jotaguma foofu. dëgg daal lépp nga jaarale passe passe partout. waaw yëpp a yem waaw. dañuy dugg ba relation nga am ak yeneen mbër yi. yan mbër. yeneen mbër yi mbë lutteur yëpp mbër. waaw jaamu rek. Mhm. waaw ndax ñu ñëw bokk liggéey bi jaamu rek laa sëgg ak ñoom ñëpp di leen ña di ñaanal ñëpp jaamu. Mhm. waaw làmb ji tamit dafa yaatu. Mhm. képp koo xam ne sa warsax lu si làmb ji rek da koy jël quoi. loolu la ñaanal ñëpp jaamu. ñu ñaanal waa sama écrit ñi nga xam ne amuñu combat yàlla defal ñu am komba waaw. ci sa carrière mën nañ ne gudd na guddul. ku xam Cheikh Tidiane ñaa xam ne mbër bu technique carrière bi di nga dara bëre ba léegi est-ce que am nga ci régler loo xam te ne nii si c'était à refaire dootu ko defaat. non amaguma ko da mhm. waaw. ñu gis nga sóobu ci nga xam ne mooy lutte simple. ku ne mhm. Cheikh Tidiane Niang ñëwee la mbër lutte simple la lutte simple ak lutte frappe ban moo ci gën a métti ci yow. Euh, lutte simple moo gën a métti. Mhm. waaw lu tax. Ah, waaw la. waaw. mais Balla Dóor moom benn combat la rek. Mhm. waaw te di nga xam boromam moom nga ko suivre di xool lépp waaw loolu la rek. est-ce que dara mos naa dal ñu ne Cheikh Tidiane Niang def nañ def nañ tirage moo war a kii sa fit na am na mbër bu la sonal ci lutte simple nga xam ne kii kat foo tase rek mooy loolu. non non loolu amut. Mhm. waaw. lu ñuy laaj danga nga nekk lu léger def lu rëy heure boo ñëwee làmb ñu ne làmb ji kat Cheikh Tidiane Niang moo ko moom nga yëg luur. est-ce que ba nga yéegee Lour rek ñaata victoire ñaata drapeau nga jël Lour. drapeau yi ma jël Lour kañ bari man bu mhm. may bëree leese sax dama doon bëree Lour loolu kañ kenn mënu koo compter. Mhm. waaw. ka digganteeg Doudou Sané. waaw sama digganteeg Doudou Sané loolu jaamu la rek mhm. adversaire la rek comme adversaire rek. waaw daan naa ko huit mu daan ma trois. kan moo mujjee daan seen diggante ñaar moo mujjee daan. <laughs> te dañuy dugg ci keppaandaal di xaar sa digganteeg nongolo. xaleb Grand Médine ba naka nga koy préparé. waaw préparé comme combat yi passé rek laa ko préparé ànd ak samay mbokk rek ak sama mbokku mbëri yëpp waaw mhm. loolu la rek. lépp mhm. jaamu quoi. Mhm. préparé lu jaam ñaar séance d'entraînement nga doon def. man deux waaw. séance jaam da ñëw calme lan calme bi lan la combat bi moo ko laaj wala lan la. calme bi moo ko laaj. mais incha allah moom samedi moom mbayang bu yëkkatee bi rek moom moo dal rek incha calme bi day deñ mais da ngay da fippu. waaw instant yi moom zéro pression la ñuy doxee dañuy def calme ba bés ba rek incha allah lépp yëngu. ñu gis ngay bëri xale bu la ñeme nongoloo face to face day ñëw mu wane boppam yëngal xam nga ñe ñeme la daal man lan moo waralu ak tension bi am seen diggante yéen ñaar lan la. ah waaw loolu la rek combat la rek daf maa war a ñeme man tamit dama kaa war a ñeme loolu la rek. Mhm. waaw mais jour bés ba boobu na dogal boobam rek taxaw. ci dëggal boppam laay ñëw nee na boo taxawee xeex. mu duma la soo bëree mu jàpp la ci bëre pur daal lay daan. waaw ah, yow nga ko yóbbante. man su ma ko dóoree mu daanu. mës ngaa dóor nit mu daanu. maa seetaanoo sama combat bi mu ah, jëbi. man dama laa tontu ñi lay ma ne ndax sama combat bi mu jëbi laa lay tegal gañ. yow to neel kii laa ma sa dóor mu daanu rek yow ñu dégg la. capitaine. capitaine waaw. yaa ngi dégg loolu. wàllum mobilisation bi seen fan ngeen toll. lépp falaw koy lépp jaam lépp pare na. Mhm. parcelle ñëpp ak moom boobu ñëpp a ngi préparé ak waa Niodior waa Ndun ñëpp. Mhm. waaw sama supporters yi ñëpp ñu ngi pare waa groupe fans yi ñëpp pare na ne saa yi. Mhm. samedi la ñuy xaar rek ñu dem jëli ko. waaw. samedi la ñuy waaw moom incha allah zulum zalam la. luy zulum zalam. zulum zalam bés ba nga koy xam samedi nga koy xam samedi ngay xam luy zulum zalam mais du fii nii waaw foofu joxos man ay slogan yu bees daa gis kenn naan boo boo xalaatee ñàkk kii naan zulum zaram sa ko tekkil yooyu noonu. non ba laa la koy tekkil après après ñu wax la luy zulum zalam. après ñu wax luy zulum zalam. waaw lan moo indi ninki nanka bi am na ñu bari ñu may laaj. boobu ninki nanka bi sam benn papa moo ko jox maa ngi koy nuyu. yaa see mhm. doomu sam maam alaaji maa ansuñang mhm. di nuyu sam maam tamit di ko ñaanal yàlla may ko tan bu baax a baax a baax. Mhm. waaw yàlla ko fi. ndax foofu laa juddoo moo ma ko jox quoi yaa seex moo ma jox tur boobu. Mhm. waaw ku wax mobilisation wax ay nit ku wax mobilisation wax mbooloo. ñi gis phénomène bi am ci làmb ji instant bi du ma taay di ko wax sa jour dama koy wax mbari bu ñuy bëre war face to face seen supporters yi di yàq wala ñii di violence seen biir yow en tant que porteur de voix naka nga gisee loolu ak lan ngeen leen di wax. ah waaw làmb ji moom nit ñi mun neen bëre sans violence quoi violence bi moom mun leen koo bàyyi ndax ñun rafetluñ ko tamit. Mm-hmm. waaw mais lamb moom ak coow ñoo ànd quoi. Mm-hmm. waaw fu ñu ñun ñun daal ñeen ànd ak suñu xel rek ñu dal quoi ñu xam ne mm-hmm. lii sport la tamit ndax loolu lañ yaakaar ndax yàgg na tamit depuis lors corona bi mu ngi fi bëriwuñu defuñu dara léegi lii fu ñëwee rek dañoo war def si yar def si discipline waaw fu jeexee rek jeex na quoi waaw. da ngay bëreeg mbër boo xam te ne mën naa ne yéen a bokk benn territoire bi ngeen nekk. parcelle la nekk presque yow parce que keroog moo ko invité daf ma ne maa ngi woo Modou ci combat bi di woo Gora Sock ci combat bi ku xam Gora Sock xam nga dóor dóoraat. waaw yéen ñaar seen boobu noonu. ñun tamit ñu ngi woo ñooñu ndax ñooñu tamit suñu grand lañu. Mm-hmm. waaw mm, doomu Modou Lo suñ suñ suñ gaala lay nekk ñoojoor Ahmed Lo. maa mm-hmm. bu baax. Mm-hmm. waaw Modou tamit jàpp na si combat bi incha allah jàpp na si bu baax a baax. lan ngay wax fan si. waaw di leen wax ñu teew rek teel a dugg rek incha allah ñu defar gan gi bagage. Mhm. loolu rek laa leen di wax. champion la mbër la xam na làmb pur beneen làmb bi am ci ëllëgu seen combat di dox ci diggante Gris 2 ak ki nga xam te ne mooy Abdou Diouf ndax nga gisee combat boobu. waaw combat boobu ni ma ko gisee moom <laughs> mënuma si wax lu bari quoi. tax waaw ah, loolu laa mënu rek mënu si wax. lan moo tax. ah <laughs> loolu mënu si wax lu bari yow mbër nga. waaw mbër xam nga làmb nga xam ñaari mbër yëpp. lan nga ñu mën a wax ci combat ah, gën a gis de. Mhm. waaw avantage gën a gis. Mhm. bi dox te diggante Boy Niang Tapha Tine. ah combat boobu combat la rek comme combat yi comme dab rek. Mhm. man moom xam nga ku koo xam ne bokkuma ak moom entraînement xaw ma lu mu def gisuma lu mu def. mënuma wax si moom lu bëri quoi. waaw. ka nga bokkul entraînement dóor dooraat tey boo ma laajoon tey aada wala nga laaj ma booy Faye wala nga laaj ma Biram bi nga xam ne ñoom laa bokkal entraînement. ci foofu waaw ñeme naa laa wax ne kii lii laa wala capable ne lii laa wala lii laa mun na kaa def. foofu laa jëm. waaw dóor dóoraat rock énergie ah. Euh, jàmbaaw Rossi académique écurie yooyu yëpp nekk parcelle est-ce que jotul du ñu xaar bés jot écurie yooyu nekk benn écurie. ah waaw lool lu jot rek yomb. ndax loolu tamit. parcelle am na ay kilifa. Mm-hmm. ay kilifa yooyu bu ñu ko doxee rek loolu moom amul benn problème ñun ay lamb lañ yaakaar. Mm-hmm. te ñun tamit dañoo yéene ku nekk daal yéene nga sa moroom jaamu quoi. Mm-hmm. waaw loolu la rek ndax lamb dafa yaatu yaatu boo xam ne ku nekk mën nga si lekk sa war warsak. waaw muy loolu te kenn du am kenn problème. waaw. du ñu dugg dóor dóoraat ba génn dañu leen laaj ñaan ñi nga xam te ne ñu root ñu naan dóor dóoraat Zoss anam fu mu ne. Zoss mu ngi fi foog nañ a dellusiwaat ànd ngeen ci loolu wala ah waaw mu ngi fi moom la rek loolu moom lu mu bëgg rek ñu moom ñu ngi ci ginnaawam. Mhm. waaw lu mu bëgg rek bëgg neen ga mhm. waaw. mu noonu dama koy kontaanee bu baax ah champion la beneen. Cheikh Cheikh Tidiane ci combat bi mu jàpp si tamit Jos. Jos du nag du ma naan kafe doomu ndey mu moo maane maa ngi koy bëggee bu baax ah lan ngay tàggatoo ak la ngay wax supporters yi Ninki Danka. waaw avant tout rek damay gërëm ñi nga xam ne ñoom laa nekkal ñii. Mhm. waaw ñëpp mm, sama mbokk mbër yi maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax wax dëgg. ñu may jàppale di may conseil tamit waaw ndax nit moom nit ay garabam mhm. waaw di nuyu waa ñoojoor ba fayaa ko ñëpp maa ngi leen di woo ci combat bi képp képp ko andoona gaw rek mais wayam na combat fee mhm. o fii tewo damteen o koye ndongo jeen enano e mais leya ndongo jeen enano e simna wene andoona ga den na ñaananaam mhm. ana den to anima den we anduma fi anderuma fop i mais simna fop e, simna o foole andoona ga ten ref Espagne tamit i gidmaam fop qiyaamneno ngenoritna i simna we gang missionnaire a paax a paax a paax i mais simna den waaw simna fogole seereer fop waa simol deng mm, est-ce que doo ko lax ci olof déggul séeréer mën a dégg loolu mënu ma ko wax si olof waxal sa supporter nga xam ne ay olof lañu ma ko wax a olof non bul wax loolu mais sa supporter nga xam ne ay olof lañu waxal ak ñooñu <laughs> seeti nga yëngu de defal ndànk eh, ba la trois de sa supporter nga xam ne dégg nga olof la ngay wax ak ñoom waaw supporter ke mi hooyaa nun nuno olof fe mi hooyaa nun nu ngarna combat fe tey laa teeral ah. wax naa ko nee na wax na ko loolu dafa leer dama koy bëggee bu baax moom Cheikh Tidiane Niang ah, borom dinki nag di ko kontaane bu baax waaye di kontaan aussi waa Dóor ñu ma fekk di leen bëggee cat ba cat di jël nuyoo bi waa di nuyu Garga tamit Garga Mbossé ak ñoom Ramdan ñu ngi leen di ñu États-Unis ñu jàpp si combat bi baax dégg naa ne jox na Biram xaalis bi Biram xam dina ma ko jox <laughs> waaw incha allah Ada moo ma wax loolu ko quoi Ada Dieng waaw 4 millions la ma jox. benn ñaar ñett ñeent millions. waaw 4 millions mais jaarul sama loxo de loxo biram la jaar. biram man. biram mi. Boursine. waaw Boursine. Boursine jox la million jàmbur yi waaye. <laughs> gar dama am combat suba dégg man moom 500 laa soxla li ma soxla bariwul yaa ngi may dégg dama koy bëggee bu baax di ko ñaanal jàmm ju bëree bëri ah borom dóor dara di kontaan ci moom waaye damay bëggee ñu nekk sama ginnaaw waa dóor dara caat dama jël nuyoo bi. teg ko ci loxo ki nga xam xamante ni mooy booy fay di ko nuyu bu baax Bour Sine damay bég ci yow waaye ki ma fi jig dik taq ba léegi ñoogul maa ngi koy bégee bu baax ah aada booy bawal damay bég ci moom kontaan ci moom lool lool lool joxe la million jàmbur yi millions yi anamu millions yi mu ngi si biram millions yi biram tey suba demoon na jële xaalis bi hmm, ñaara million la 4 millions la ko gar yéen mais daf ko bëgg a dagg de mais man dama ne ko xaalis moom mooy loolu. léegi daggal 500 million la bëgg a jël. lan ngeen di wax nongolo. biram daal mi ngi nii na wax lu leer. biram biram jël micro bi ana xaalis. mbër wala joxoo ma 4 millions bu ma jaxase ak Alpha Kouar tamit ah ma joxuma 4 millions de 2 la ma jox 2. muy noonu ah bëgg naa ne ñoom ñëpp ba cat mu ngi noonu la famille lamb lii ka fooree. jàmbur ji ñëw. waaw di nuyu sama boy bi quoi. bàyyi ko nuyoo ba léegi. non non d' accord. tur bi secteur quoi Babacar la tudd. Babacar maa ngi lay bëggee bu baax xam si Babacar Mbena quoi. Mhm. waaw sama boy la. Mhm. waaw depuis mu ngi mu ak man fii quoi. jàpp si mhm. combat bi jàpp si lépp daal. waaw mu nekk sama boy maa ngi koy gërëm di ko sant quoi. di nuyu waa dëkkam Jindo di leen woo ci combat bi ñu jàpp si bu baax ak waa Jam ñaajo waaw waa Basul waa Basar waa Jindo waa. ñoo jor ba fayaa daal ñëpp daal mhm. le sil de Saloum maa ngi leen di woo ñu jàpp si combat bi mhm. waaw yaa ngi woon ñëpp waaye man damay sant di gërëm promoteur bi Mbaye Yékini sama xaritu bopp boobu damay kontaan ci moom bu baax a baax naka combat bi nga taxawal nii combat bu nar neex la incha allah dina bokk ci journée yi gën waaye nag day naan liir bu fecc ba neexee nday jaajàpp ca mbagg ya ba damay gërëm sama chauffeur bi moo maane 100 pour cent assurance bég ci moom bu baax a baax naan ko peace and love waaye trio bi damay bég ci ñoom Fama Bilal kontaan naa ci yéen bu baax bàyyi jiili sama magu bopp bi moo sang damay bég ci yow ah jox daje ëllëg incha ci beneen émission Leewtoo ak ak beneen champion jaajëf.